بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را internat Seyda Nafisatu Jonn bëgg alxuraan sopp alxuraan mën a jàngale loolu macha allah alxuraanul karim kon yow mi bëgg alxuraanu karim wala nga am tu tànk wala njaboot goo bëgg seen dënn alxuraanu karim fees ko dell ba noppi ñu koy jëfee am huddan ak shifa yóbbu leen ca internat Seyda Nafisatu Jonn si Birutane wala Dakar rue 17 angle 22 numéro téléphone 77 528 13 Jonn defar na ndaw yu bari lool xayrukum man taallama alquran wa allamahu daara internat Seyda Nafisatu Jonn ñépp mokkal alquran macha وقالوا يا